de de de de xaw stratégie. stratégie deuxième mu ñëw ci choix. mais bi mu waxee choix gis nga alliance yu commencé woon di dessiné wu autour de euh, mais loolu moo tax Macky Sall gën a taxaw ci repousser les élections parce que benn. Mm-hmm. musul woon gëm. Mm-hmm. ko doon défendre ci plateau loolu lañ doon théoriser. Mm-hmm. musul woon gëm ni. Bassirou Diomaye Faye candidature am dina jàll. lan lañ doon théoriser parce que si parti bu ñu dissoudre la ñu bokk. mais ñi ko doon wax ñëpp xamuñu loi xamuñu article. xam ñu dara dañoo am dëgg. parce que loolu li code électoral wax dafa leer donte ci parti bu ñu dissoudre lañ bokk mais y' a d' autres possibilités. offertes mhm. même par l' article 57 alinéa 2 du code électoral. ok dañoo am dëgg kon ñun ñu xamoon ñëpp tamit xam am am xam loi xam code électoral xamoon nañ ni Bassirou dafay jàll facilement parce que y' a d' y' yu mën a jafandikoo pour nekk mais loolu leen bett. Mhm. bi loolu ñu amee si nga gis changement bi am. Mhm. Alassane Sall a exercé un droit bi jox. Karim Wade a double nationalité. Mm-hmm. daf koy dénoncer. Mm-hmm. parce que ñun tam ñoom tam aussi bu ñu bëggee nekk ëllëg. Mm-hmm. ñoo xam dañuy sàmmonte ak constitution réew mi ak valeur républicaine yi. mais il faut que ñu wane ko avant ñuy nekk. donc je salue l'acte de Thierno Alassane Sall qui a dénoncé Karim Wade. bi nga xam double nationalité la am. loolu mooy combat de principe. loolu mooy combat de principe. maintenant Karim Karim Wade ak parti démocratique sénégalais aujourd'hui lii Sénégal di dund ñoom ñoo ko traversé parce que bu fekkee ni am nañu ay preuves. Mm-hmm. te loolu xam naa diñ si ñëw. Mm-hmm. ndax juge bi def naa ubbi na information judiciaire. absolument absolument donc loolu dinañ si ñëw ok ok léegi dañuy continuer directement ginnaaw ponk bu am solo boobu nga xam ne jot nañ ko yëkkati dem ci troisième ponk bi maanaam ñetteel bi ponk ndax ñëpp gis nañ que ni même si am na ñu nekk Sénégal ñu bëree bëri ñu jël baraamu tuuma di ko jëm président Macky Sall ak jàpp ni moo nekku ci dëgg na tamit également ay yoo xam ni seen fidélité ñu ngi koy firndeel jëmale ci moom ba tey bokk na ci démb ca MNF mu yëkkati fa ay kaddu di xam ne président li mu nekk li lépp nag teewul tamit Sénégal lañ bokk yàgg nañ fee gis nit dugg ci ay péexi doona wala du mel wante alaafee ñu taxas ko ba mu set génnewaat ko ci dañ koy jàngat ko ci lu gaaw a gaaw euh, suñu technicien ñu bàyyi ñu dugal Souleymane Diop. j'ai mal j'ai mal vous avez presque réussi. j'ai mal mais <laughs> votre manœuvre ne passera pas. Souleymane j'ai mal Souleymane. Macky Sall tient entre les entre ses mains les destinées millions de Sénégalais. Macky Sall not premier représentant à à, xalaatuloo ne ni nga bi nga am métit boobu la sénégalais yu bari am yu ko yéene woon woy bu rafet yu ko yéene woon jàmm yéene ko réew mi woy bu rafet bi dina ko am mais ñun ko ko may mun a dara entaché si fii yàgg naa si fii gis nga fii yàgg nit yàgg naa entaché ñu defar ñu raxas ko ba mu set solal ko ba mu jekk ñu suturaal ko loolu la suñu réew xam. alors Macky Sall jarul di fi xalaat nit jarul di fi. Macky Sall woote dialogue c'est-à-dire nga nga xalaat ne après tout ce qui s'est passé entre Macky Sall et son opposition nga yaakaar dinañ ko yombalal demam nga yaakaar ne dinañ ko bàyyi sénégalais yi dérouleel ko tapis rouge. lu tax lu Macky Sall ñoo di xaaral rek Macky Sall dem dans le sens du vent reporter élection yi ne nañ dialogué mu doon li ñenn ñi bëggoon. léegi ñu ne ko déedéet yow yaa reporté élection yi parce que da am problème ci sa biir ci sa biir camp yow yaa bëgg a liquider. gis nga Macky Sall bu wéetee bu wéetee wéet ak yàlla. waaw xaaral rek. wéet ak yàlla léegi Macky Sall ne kaa leen ñu dialogue. war na poser débat bi en conseil des ministres ñoom ñu doon wax naan ni ñu tëggee mbir yi baaxul au lieu ñu dem wuyu dialogue ñu commencé bëgg a indi dissension est-ce que Macky Sall finalement ne s'est pas fait. piéger est-ce qu'il n'est pas pris finalement dans ah, son propre jeu. si c'est fait piéger de bonne foi Maïmouna Maïmouna nit waaw mais moom tamit am na intérêt ci report bi. nit nit la ban ban intérêt la am ci report bi. am na intérêt ci report bi wax ma intérêt. am na APR am na ñoo am intérêt ci report bi. voilà mu nekk déclaration déclaration Souleymane Jules Diop di partisan kii président Macky Sall continue nag ci même dynamiquement fi mu nekkoon di ko défendre ba léegi ni ko noonu la yëkkatee ay kàddu maxu Souleymane Jules Diop nee na Sénégal dëkku jàmm la dëkku teraanga la lu fi nit mën a mel euh, mérito na moom président de la République euh, grandeur bi nga xam ne am na ko en tant que chef de l'État mu am li nga xam ne moo di sortie bu honorable est-ce que jàpp nga ne tey posture président nekkee li nga xam ne amoon na fi askan wi nañ na am génn bu rafet c'est un frein communicant. Mm-hmm. et soo seetloo Souleymane Souleymane Jules Diop. il faut que comprendre comment marche le palais. Souleymane Jules Diop c'est quelqu'un boo xamante ni bu ñu jugee pour wax pour defar moom la ñuy yónni. Mm-hmm. su ñu jugee loo xam ne dañoo jug pour yàq pour xeex. Mm-hmm. xam nga kan la ñuy yónni Mame Mbaye Niang. non c'est sorti c'est nag. ki soo xamee palais ni muy doxee. di nga xam ne Souleymane Jules Diop bu génnee rek jàmm la ñuy wër. Mame Mbaye Niang saa bu génnee rek. xamal ne day xeex moom moom day saaga rek. mais léegi. dafa am loo xam ne dafa am solo bu baax a baax a baax. nee ne il a mal il a mal pour Macky. nañ ko utal sortie bu honorable mais ak ki la faute. à qui man je suis quelqu'un boo xam ne je me suis toujours battu je me suis tellement battu. Mmh. Euh, du temps de Y'en pour que Macky Sall falu mm-hmm. mais est-ce que xam nga ne Macky Sall li ko dal nii yëpp moo ko teg boppam kenn teg ko ko moo ko teg boppam. dinaka non mais parce que il est mal conseillé mal entouré gis nga ce discours va guerre chaque fois ñu lay wax. Mm-hmm. affaire yooyu noonu force restera à la loi. Mm-hmm. gis nga nguur. nguur du xeexee dooleem. parce que ça te conduira à perte Macky. le reste de sa vie de sa vie il sera très et je suis sax di ko wax soo moytu li des ci àddina ñëpp da ko nar a xeex. xeex ci naka. mais 86 morts ces gens là c'est pas des du ay muus wala ay picc yu dee. leur famille ne va pas laisser Macky Sall en sortir indemne gouvernement bu ñëw ne da nga leen di baal mais loolu il faut que et le premier responsable pour man c'est Macky Sall. Mhm. c'est durant régime. manifestation yàgg na am mais Abdoulaye Wade il y a eu des mm-hmm. ce que li ñu rey yëpp rey nañ ko. Mm-hmm. te Abdoulaye Wade il a payé très cher. Mm-hmm. son fils 12 ans ngi mënul ñëw Sénégal. dëgg la Abdoulaye Wade li des ci àddunaam yëpp Macky def ko sol parce que lu tax. et c'était une demande populaire une demande sociale. nañu Karim Wade nañ ko tëj. gis nga Macky Sall ne pouvait pas faire autre chose. que satisfaire à cette demande là mais un autre président bu ñëwee ak képp ku mënti doon man je trouve que ne qui est le meilleur allié de Macky Sall sax ci ci ci ci gouvernement bi kan moo ci gën a nekk xaritam Mame Mbaye Niang xaritam ah Mame Mbaye Niang moom du nekk xaritam Mame Mbaye Niang xaritu mën a fay sàll mais kan duma la jox exemple xam nga kan de Macky nag Macky ñàkk na ay xarit de ah. Macky ñu ngi ànd sax amu ci xarit ki ci gën a nekk xaritam barke alxuraan boo ko jëlee yaakaar naa ne boo ko tegee ci nguur gi bu Macky demee quand le quand la demande sera forte il va sacrifier Macky Sall il va livrer Macky Sall. Hmm. te lii yëpp mënoon na ko moytu. Hmm. parce que bakkanu doomu aadama dafa am solo. Hmm. est-ce que kon finalement il a eu peur moo tax mu alternative il sera obligé de lâcher prise mënul continuer ci nguur gi jëm kañ. il sera obligé de lâcher prise. parce que xam la. bool bi jeex na. soit da ngay jóg wala ñu téye sa loxo. di tax y' a pas de solution. yaa ngi alors Serigne Niang ah Serigne Niang dégg nga kàddu yi nga xam Souleymane Jules Diop na la la façon dont le président peut na am sortie bu honorable wala jàpp na c' est trop xam nga man pour man c' est trop hmm. waaw pour man c' est trop tard donte nag Souleymane Jules Diop mission am lay dox. Hmm. xam nga mooy li ma ko wax sànq ci Ablaye Wade ak Abdou Diouf. Hmm. xam nga Sénégal commencé wul tey. lii fi am nii aussi tamit xëyu xëy rek am. parce que dafa ràmba yegg si fi mu fi mu yegg c'est pas la première fois. Mhm. Macky le président Macky Sall a violé constitution au Sénégal c'est pas la première fois. Mhm. barki Demba Ndiaye fii.